jës bu moom mhm. daa mel ni mook suñ murtulaa moom noo ci bokk kii rek mhm. ndax suñ murtulaa li ma ci defloo ci band bari na lool suñ sony bét moom rek li ma daan jàngaloo jës jës bi rek mhm. waaw daa am na bis sax mu di ma ah may may ni nga ko mën a toppandoo nag da nga mës a gis jëmm ji. waaw nga moom noonu la <laughs> noonu mu daan waxee. jës bu ji waaw ni nga ko mën a toppandoo da nga mës a gis jëmm ji. <laughs> daanaka daanaka gis suñu blaat daan suñu suñu blaat daan na ko teg. teglu ci këram googu. ndeysaan ndeysaan ma koy déglu mhm. moom sax bi fi jógee yàggul de rek la fi jógee waaye nag yàlla def na yàlla ba tey musuma ne musuma ne musuma ko gis ndeysaan waaye nag noonu la ma yàlla dimbali woon ci ci ci daaj boobu ndeysaan ndeysaan ba ren jii rek mooy daaj bi nga daan jàng ajaaba am na ajaaba nii bu neex boo daan rajas boobu da ajaaba ne kii la ajaaba nii rabbu sama euh, boobu nag yi lillaahi rabbil lasi lillaahi rabbil lasi ak ak mhm. euh, daaj boobu tey jàng naa ko maanaam daaju ahbabtu rabbal alamin. Mhm. yooyu yëpp xam nga ma ma li lay rëbbi la si ba. waaw mhm. ah, de bu ko rim bu ko rim daggal comme si bla da nga koy da nga koy kii. Ah, kii ko wax ci ay bayit rek wax ci ay bayit rek waaw. sallim wa sallim fi lmasa walayyaman xadduusa ala rais almurasa xayril wara xat xamaa xayrul basaari wasta xiyaari summaari ilaa saawi takabbuuri kalbadri wasta aljuuni yowman biis taddani daal yowman biis taddal xiitaal yowma taa رفي الرجال يوم رضا والوجام يوما به اصطدى النضال يوما به اصطدى الخيطال يوم طاعا رفي الرجال يوم رضا والوجام سعيد نون لان كو دون جانغالي jàngal. waaw moom jës bu jës bu daal. ndeysaan moom rek la ma la ma doon jàngaloo moom. ndeysaan sëñ Saaliw. sëñ Saaliw it. foofa la ma foofa la amoon tawféex bi mu seetee sëñ son bu booba koor gi des na ñaari fan. mu seet si euh, sëñ son bu keroog ba muy ñibbi. tàggatoo nag sëñ son ba noppi. ñibbi. Mhm. Mhm. ba sëñ son bu duggaat ci ci ci néegam. Mhm. nestul ma gisaat ko mu dugg si ma dee ne daa soxla sëñ sëñ sony bu mhm. mu jawal si ci man mhm. quatrevingt os boobu moom it li ma gën a marqué loolu ci la bokk ndeysaan saan mu làmb jiba ji génn xaalis bari jox ma ndeysaan sëñ Cheikh Béthio Thioune mii ma nga foon mhm. ak Baye Saliou si Baye sëñ Diaw ñu bare ngi ci woon tabarakallah ndeysaan keroog loolu marqué na marqué na ma lool moo tax ba ma njëkkee dem këram di fa jàng

ndeysaan lii sëñ Saliou wax na ko. wax na ma ko ma waaye tontu wu ma loolu moom neexut a tontu. ndeysaan wallaay wallaay tontu sama xel ni loolu moom tuuti naa ci rek. sama xel wallaay wallaay wallaay am naa ci ndeysaan lépp nag. Mhm. ci barkeb sëñ Abibu Mbàkke. sëñ Abibu waaw. sëñ am foofu. Mhm. foofu foofu rek ñooñ dama leen a dund. ndeysaan ba may lu tuuti. Mhm. soixante dix la ma indi woon daara. soixante dix. waaw boobu kër sëñ Abibu bi mi ngi fi sëñ Modou Abibu nekk tey. foofu la sëñ kër sëñ Abibu nekkoon. ba ba quatre-vingt-un njàngum xasida bi sëñe bi boo ko def ci man moo doon wax Ablaye Seck moo woon gënoy ngeen ñëw jàng kuréel mi ndeysaan ah xam naa ne booba la def li muy def ci man mhm. ba mu barkeel mhm. waa kër sëñ sëñ am am na yoon waxoon que sëñ Saliou damaa dem mu jàngaloo ma beneen yoon waxoon damaa dem sëñ Saliou jàngaloo ba ma jàng ba noppi mhm. mu ne xanaa xanaa njaareem di bokk na say jaar-jaar